xaaj boo xam ne xadis ñu gën a foor lay jël mooy xadis diggu doomu nga xam ne seen xadis dañ koy nangu sànni ñi nga xam ne seen xadis duñ ko nangu boo ko xoolee nag ñeenti xaaj nga koy def muy xadis ñu gën a foor ak ñi nga xam ne seen xadis xeggul foofu waaye des koy nangu ak ñi nga xam ne seen xadis gaa mën naam dana lot waaye mën nañ koo dëgëral ngir yeneeni anam Eh, su ko defee xadis ñi nga xam ne ay narkat lañu ak soskat ak ñu doyadi ñi bu ëpp moom du leen jël loolu yëpp andi na ko ci téere bi ñi gën a kawe nag seeni xadis moom lay sukkandiku mu imaamu nawawi radiallahu anhu wa ardaahu ñi nga xam ne eh, topp nañ ci seeni xadis mën na ko andi eh, ñu lot ci ñi seeni xadis dafay nekk mu taabaa maanaam di dëgëral da koy dëgërale xadis yi jiitu mën naa andi xadis bu wér ba pare indiwaat même bu mel noonu waaye euh, ci yoon boo xam ne ka ko nettali dafa lot waaye muy sukkandiku moom ñaareel ay xadis yu wér la doon yu dëgër mutaabaat yi ak shawaahid yi nag muy xadis yi nga xam ne daf koy dëgërale yeneen yi euh, yooyu moom léeg-léegi nga gis ci nit ñoo xam ne xaw nañoo doyati ايو ياق حديث بي متن حديث بي مو ويرنا مو ياخو حديث بي لولا امام نووي دي واخ رضي الله عنه و ارضاه دنگا ني كيمني عونين وين فوب لنج تولون اها اه فهمني اه waxoon na ñi nga xam ne ñoom la seen xadis dëgër lool muy Mansour Amash Ismail joxe si exemple wax ñi nga xam ne xemuñ foofu yegguñ foofu waaye nag kenn du leen sànni comme Ataaw ak Yazid ak Layt mu ne wa fii misli majra haawlaay comme yoonu gaa ñi la isa waazante boo tëkkalee beneen aqraan diggante maas yi maas yi it boo leen tëkkale da ngay gis ne ah, dañuy rawante ke ibnu awnin foofu lañ tolloon wa ma asaxtiyaani maa awf bun abi jamila boo leen tëkkale awf bun abi jamila ak achance wa achance alxumraaniyu woomaa ñoom ñaar muy awf ak achance saaxiba xasan ñaari àndandooru xasan lañ wabnu sirin ak ibnu sirin kama anna anna ibna awnin comme ni nga xam ne ibnu awnin wa ayuba ak ayuba saaxibaahuma dégg nga seen an àndoor lañ ci wàllu xadis illaa anal bow na lu mooy ne diggante baynahuma bu nekk seen diggante maanaam teqalikoo baynahuma bu nekk seen diggante wa bayna haasani diggante ñaari yi <coughs> baidun aji sore la fii kamaalil fadli ci mat ngëneel wa sixati naqli ak wér ak toxal wa in kaana dila la nekk na awfu wa achance ak achance xeera madfuan yi nekkul ñu jañ an sirqin ci dëggu wa amaanatin ak kóolute inda ahlil ilmi ci borom xam-xam yi walakin al xaala waaye li mbir mi ma wasaf naa mooy lañ meral min al manzilati ci wàccu waaye inda ahlil ilmi ci borom xam-xam yi xadis yi maanaam daf boo jëlee tey ku mel ni ibnu awn ak ayuba asaxtiyaani nga tëkkale ko awf bun abi jamil ak achance da ngay gis ne xemoowuñ daraja awf ak achance kenn du leen dàq ci dëggu ak kóolute waaye nag ñëlee ñoo leen gën a kawe daraja mooy ibnu awn ak ayuba asaxtiyaani parce que borom xam-xam yi nettali xadis dañoo kaw dañoo gën a dañoo sutante ñii seen xadis ñoo gën moo gën a dëgër ndax ñoo gën a mën a mokkal ñeneen ñi mais du tee ñoom ñëpp seen xadis dañ koy nangu même suñ jamono jii rek boo doon xool borom xam yi da nga gis koo xam ni dëgg-dëgg ak boo xam mën nañ cee sukkandiku waaye nag am na keneen koo xam ne moo ko gën a moo ko ëpp gën koo xóorle ay wax loolu dafay am ci côté bu ne. mu ne way na ma masal naa naka misaal nañ xaawalaay gaa ñi fi tasmiti ci tudd leen li yekku na ngir mu nekk tamsiluhum seen ak misaal si matan di mandarga yas duru dana jógee an fahmiha ci dégg ko man ka nga xam ne xabiya bu na alay ci moom tariqu ahlil ilmi yoonu ñooñ xam-xam fi tartibi ahli yi ci toppalante ñooñ xam-xam fii ci loolu dégg nga falaa yuqassiru bu mu lu bi rajuli ci góor al aalil qadri bi aji kawe daraja an darajati ci darajaam wala yurfau duñ njëkkati muttadiul qadri aji suufe daraja final mi ci xam-xam fawqa manzilatihi ci kaw wàcci waayam dégg nga mu ne boo gisee ñu tudd ñii nga xam ne ni seeni degré ci xam-xam xutee na Eh, liñ ci jublu mooy koo xam ne ni yoon wi reer na ko xamut ni ñooñ xadis di doxalee mu xam ne dañoo wutee nit ñi dañoo wutee am na koo xam ne ku kawee daraja la ci wàllu xam-xam bi am na koo xam ne ku suufee daraja la ci wàllu xam-xam am na koo xam ne ku diggu doomu la kon bu mu jël kuy kawee daraja wàccee ko ci darajaam boobu bu mu jël ku suufee daraja yéega ko foo xam ne xeggut fa ku nekk rek na ko teg tolluwaayam bi nga xam ne fa la ko yàlla fa la ko yàlla teg borom xam-xam hadis bu mag ñu xam ne kooku ku mag la ay waxam waaw ci topp koo xam ne nag ci jàng la toll ñu xam ne ci jàng la toll koo xam ne ku digg doomu la ñu xam ne ku digg doomu la su ko defee loolu dafay tax nga mën a xam ci kan ngay sukkandiku ak kan nga war a dàq waxam ngir waxi keneen boo jëlee ku suufee teg ko fu kawe da nga dàq waxi ku kawe ki ndax waxi ku suufee kooku te xam nga ne loolu saxul ci xel saxul ci xam-xam loolu waral xàmmee daraja yi daal di baax soo xàmmee daraja yi da nga xàmmee degré hadis yi. dégëree xadis yi xadis ku darajaam gën a kawe moo gën a dëgër moom lañ gën a mën nangu ci xadis koo xam ne darajaam dafa digg doomu wayontaa danañ jox ku la si xaqin bépp borom xaq fii ci moom xaqu xaqam wuyu nazaru ñu wàccee ko manzilatoo wàcc waayam ku nekk rek nañ ko jox xaqam ci xam-xam wàccee ko wàcc waayam loolu du ko tee bokk ci làng gi làng ak borom xam-xam yi waaye nag bu nekkul ci kawit it nga mu ngi ci làng ga waaye nag buñ ko jël teg ko ci kaw fekk si suuf la nekk wala ci digg bi waxat zukira tudd nañu an Aïcha te jëlee ci Aïcha radiyallaahu anhaa yal na ko yàlla gërëm annaa ne moom xaalat wax na amara naa digal nañu rasulullah yonent yàlla bi sallallaahu alayhi wa sallam an nu nazila ñu wàcce annaasa nit ñi manaasilum seen wàccuwaay Aïcha tu def na yonent bi def ñoo digal ñu wàccee nit ñi seen wàccuwaay maa maana taqaan naa xam ne tudd na bii ci moom alquran alquran min qawlillaahi taala ci wax yàlla ji kawe ji alquran nee na wa fawqa kulli zi ilmin nekk na ci kaw bépp aji borom xam alimun ko ëpp xam-xam borom xam-xam bu nekk rek am na alim borom xam-xam bu nekk ci kawam alquran nee na borom xam-xam bu ne am na ku ko faree kaw mais ki faree kaw dañuy nangu ne moo faree kaw ki nekk ci diggu digg bi alquran borom xam-xam la ko tuddee saa waaye almi la ko tuddee waaye nag dafa am ku ko faree kaw su ko defee loolu il faut ñu nangu ko moo tax ñuy teqale loolu ci wàllu hadis naan diw ak diw ak diw ñoo nekk ci degré bi gën a kawe kawe ñii ci degré bi gën a digg doomu ñii ci bi gën a suufe ñii dañoo suufe lool sax loolu lépp pour nga xam ci kan nga war a jëlee xam-xam da nga war a xam ci ki koy jëlee faala nax yu ma zakar naa comme nii ñu tudd mais wuju ci ay anam nu allifu la ñuy taarifee ma saalta la nga laaj min axbaar ci ay xadis an rasulillahi jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon muslim dana jëlee ci ñu gën a kawe ci wàllu xadis jëlee ci ñu digg doomu ci wàllu xadis jëlee ci ñi nga xam ne mën nañoo lottu sax gaawaay seen am na lu ko mën a dëgëral la muy jëlee ci ñoom nag lu wér lay doon waaw mooy yi nga xam ne am na yu ko dëgëral amma yi nga xam ne dafa lottu lool seen hadis dafa lottu lool ñu nekk ay narkat soskat ñooñu muslim génneelu leen dégg moom lay wax ne fa fa amma man kaana waaye ma kaana waaye nga xam ne nekk na mina ci hadis yi xan xaw min jugee ci nit yi nga xam ne hum ñoom inda ahlil hadis ñooñu hadis mu taxamoon dañ leen tuumaal aw indal aksar wala ñu ëpp minute ñooñu hadis bu dee ñooñu hadis yëpp dañoo bokk tuumaal gaa yi wala ñi ëpp si ñooñu xadis dañu leen ñu ñooñu muslim du génne seen xadis loolu lay wane falas naa nekkuñ nata shaaxalu di soxloo bi taxrij xadis yi ci génne seen xadis ka abdullahi bun miswar kon abdullahi bun miswar abi jaafar almadaini wa amr bun xaalid ak amr bun xaalid wa abdul qudus alchaami ak abdul qudus alchaami wa muhammad bun al almaslub ak muhammad bun saïd almaslub dañ ko euh, euh, euh, salab ar nañ ko rey danañ ci ñëw Akiyas bun Ibrahim wa Suleymaan bun Amr wa Abi Daawud an-Naxa'i waa Shibaayam ak ñi niroog ñoom ñi nga xam ne mi man si képp koo xam ne utuhima tuumaal nañ ko bi wadil ahadis yi ci fente ay hadis wa tawlidil axbaar ak judduloo xibaar yi mooy di sos ay hadis di ko andi te yaa ko yaa ko judduloo ñooñu moom du jël seen hadis su ko defee loolu ñuy wax moom la imaam Nawawi di sarxa waxoon na ne boo jëlee masque yi nga tëkkale leen ka ibn awn ak ayuba saxtiyaani ak boo ko tëkkalee am fu bun abi jamila ak ashas al umraani yu nawawi nee amma ibn awn boo ko bëggee xam foofu moom abdullahi bun awn bun artaban koo mooy ibn awn wa amma saxtiyaani fa bi fati siin da ay fataa siin ka wa kasri taayi nga kasra taaga al musannaat gañ tomb ñaari tomb qaala woon abu amr bun abdul fi tamhid ci tamhid abu amr nee na ibn كان نكنا أيوبا يبيعوا رجاي الجلود أي درب البصرة تشي بصرة فلهذا لي مو تقيل أن يوحلو أن يلقوا أسختياني أسختياني وما يديروا بي يديروا بي بوكو اللي مو أسختياني دران جاي در موتو نيتو ديكرول وما عوف بن أبي جميل بوكو بغي خم فو يعرف دران كو خمي بعوف الأعرابي ومن يعوف الأعرابي ولم يكن نيكو الأعرابي عندي سامو نيكو تنيسو الله واري نون نيكو نووي <laughs> واسم أبي جميل مو بندويه ويقال سريبه turam wutee nañ ci qaala woon Ahmad ibn Hanbal ne awfu siqatun ku wóor la saaliwul xadis ku baax xadis la wa qaala woon Yaxya bun Maïn wa Muhammad bun Saad ne huwa moom awfu siqatun ku wóor la kunyatu dàkkantaram mooy Abu Sahla awfu bun Abi Jamila dàkkantaram mooy Abu Sahla dégg moom la ñu wax awfu al-Arabi abi jamil nag mooy bàyyam la waa ma achance foo moom ibnu abdul malik mooy doomu abdul malik abu hani al basri qaala abu bakar al barqani ne qultu wax naa li daaral qutni ñeel daaral qutni ne ko asxas anil xasan asxas hadisu asxas bu jugee ci xasan loo ci wax qaala mu ne hum ñoom salaasatu ñett lañ xam ne ñett ñoo xam ne yu xaddisuuna dañuy nettal xadis anil xasan jëlee ci xasan jamian mboolem seen ahadum kenn alxumraani yu mooy ashas alxumraani yu mansuubun ilaa xumraan ñu ngi ko askanee xumraan mawla Ousmane Ousmane ibn Affan mbaa yàlla Ousmane la woon siqatun kooku ku wóor la kon ashas ñu ne ku wóor la ak ashas bun Abdullahi alxuddaani kooku basriyun waa basara la kooku yarwi an anas bun malik wal xasan danay jëlee ci anas di jëlee ci xasan kooku yoon tabaru bii danañ danañ xalam xadisam maanaam nangu nañ ko daal xadisam am na yeneen yu ko mën a dëgëral wala mu dëgëral yeneen وأسعس bun sawaar al kuufi kooku it yuctabaru bii danañ xalam xadisam woo moom adaafu mooy moo ci gën a lot waaye teewul xadisam dàquñ ko mutlaqan wallahu aalam kon waxoon na ne ibnu awnu muy abdullah ibnu awnu ak ayuba saxtiyaani ñooñu dëgër nañ lool waaye bokkuñu ak awf bun abi jamila ak ashas al umraani moom lay wax ne qawlu ilaa an al bawna baynahuma baidun al bawnu bi fatil baayin muwaxada maanaawo al farqu mooy teqale ay xumaa ñoom ñaar mutabaayidaan dañoo sore kama xaala comme nu mu wax mm-hmm. wajatum fekk nga leen mutabaayi nay ni mutabaayi nay ni ñu ñaari way sore mm-hmm. yemoo wuñ degré même ni nga eh, li nga li nga sa rek lu nekk rek liggéey àddina yi sax ni ñi daawuñ ci am loolu nag yàlla ko def na fadlu laa yuti man insha waaye nag borom ngëneel ñaareel mooy ko jàpp ne amul benn ngëneel mm-hmm. kooku mooy ñaareel borom ngëneel waye ko gis mu yaakaar ne moo ëpp ñëpp ngëneel rek dafa amul ngëneel ngëneel ko gis ku ko am da koy delo yàlla ku koy mbubu rek da ko amut wa xawloo waxam leeku na ngir mu nek tamsilum simatan yasduran fahm ya man ghabi alayhi tariq ahli al-ilm loolu wax nañ ko amma simatu mandar ga lay firi bi kasri sin si kasra sin go takhfif taxfiif miim ak oyofal mim gi fayil ala mom mandar ga wa qawlu yasduru ay yarjiu dana yuqalu yuqaalu sadara al-ma'i del dellu na dégg nga sa dara jugee naa ni maaye ci ndox mi wal bilaad ak dëkk bi wal xajji ak aaj isan sarafa bu tourné anu bàyyi dëkk ba baada xadaay wattri yi gannaaw bu mu fajee aajoom fa maanaam yes duraan fahmiha ay eh, yan sarifu dana wàññeeku an ha ci moom baada fahmiha gannaaw mu ko déggee wa xadaay xaajati ak faju aajoom minaa ci moom kon dafa yoo xam ne bu mu joxee misaal ci ñii pour nga xam ne borom xam-xam xadis yi dañoo sutante dégg su ko képp koo xam ne yoonu ñooñu xam-xam réeroon na ko dégg nga dana tourné gannaaw bu mu déggee ne ndekk borom xam-xam yi kat xamuñ benn daraja dégg nga loolu lay foofu wa xawlu xabiya bi fatil xëy ni ci fataa xëy ngi wa kasril baay ak kasril baay mooy ay xaf yee nëbb na qaala wala rahimahullah yàlla ko yàlla yërëm wa qad zakara tudd nañu an ci Aïcha radiyallahu anha anna ne moom qaalat wax na amarana digal nañu rasulullah in ci àl bi sallallahu alayhi wa sallam an nunazila naasa manazilahum ñu wàcce nañu seen wàcc waay hadal xadis xadis bi qad taqaddama jiital na bayaanu leeral ko fii fasli taaliq ci bunt bu ñuy wax taaliq min al fusul mutaqaddima ci bunt yu jiitu waa di xan leeral nañ ko leeral bu leer moom xadis bi dégg waqa wa min fawaayid yi bokk na ci njëriñu xadis bi dafa dulu naa si gën a laante nit ñi fi lu xuuq ci xaq ala xasibi manazirim ci kem seen daraja wa maratibim ak seen ak seen wàccuwaay nit ñi yemewuñ daraja yemewoon wàccuwaay boo xemalee ñëpp am ñu gedd seen cër ndax ñëpp xemuñ yàlla dogal yàlla dogal loolu su ko defee boo xemalee ñëpp boo déggee ñu am ñu gedd seen cir gedduñ ko de ngir rëy de dañ ko gedd ci dëgg parce que ñëpp warul yem bu ñëpp xemee lépp yàqu ah demal ci daara ji nga ne ku nekk war naa toog jàngale xam na ñoo xam ne boo leen joxe daara ji ñuy jàngale musiba dañuy jàngal nañu waaye xamuñ liñ leen jàngal kon yemuñ soo yemalee ñëpp am ñu gëdd seen cër parce que euh, wàccee euh, mbir yi fudul wàcc waaye am lay nekk waaw am na ñu mën a yorom réew waa am na ñoo xam ne ku leen jox ab réew sànq waaw doomu nag dara jaam du moo koy may bu xam yàlla ko koy may doomu aadama dafay juddu wu dara bu demee ba nekk borom xam-xam ñu naan ko borom xam-xam wala mu nekk ab kilifa ñu naan ko kilifa gi. wala mu nekk ab imaam ñu ne ko imaam mu nekk borom alal ñu ko borom alal ji wala mu nekk borom daraja ñu ne ko borom dalal mayit ko boppam yàlla ko ko may ndax ba muy ñëw andaale wut ko ko ku xeex ak moom ci maqaama boobu yàlla solal ko ko yow xeexoo waajoo yàlla ngay xeex <coughs> yàlla nga bañ lim def nga ne nga ko def ku juddu andiwul dara toog ba si kanam ñu ne ko diw xam nga ne kooku du moom de waaye yàlla ko yàlla ko solal loolu ko defee. moo tax nit ñi yemuñ yàlla leen gënale tilka rasulu faddalna baadum ala baadin yàlla nee na yonent yi sax maa gënale ñeneen ñi ci kaw ñeneen ñi ki gën a na nag mooy ku nanguwul lool ci joonar lay dëkk waa daal yi fi baadil akaam ci yenn ci atte la bu ñu waxee ne ñu yemuñ ci daraja yi ci may yi ci maqaama yi ak ci demee noonu aw ak sariya wala lu ëpp ci atte yi waaye bu dee nag ci wàllu sariya la moom ñoo ci yem maanaam ku tooñ lañ la war a jëflante yow moom lañ war a jëflante ki foofu ñoo ci وقد سوى همل نشر شريعة بينهم سن دقن في الحدود شوال لقتن كتوان لنا نعم، ولا شوي واشباع اغن رغيوي مما جنا يقل هو معروف من قمل فهو من يبت يم ما ما يالي نيب يوم نجي ما يالي يالي مو يقول كوكو نيخ مو جوخ لوكو نيخ يوتي من يشاء الله وقت دانا كو جوخ كوكو نيخ كون كوكو نيخ مو جوخ لسي لوكو نيخ والله أعلم على رجل خلق قال رحمه الله مسلم إمام نووي مسلم لنا فما من كان منها فما ما كان من أهل لا شرح لك عن قوم هم أهل عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فرسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمرو بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو وأبي داود النخي وأصبائهم ممن اتهم بوجه الأحاديث وتوريد الأخبار لأن هؤلاء الجماعة بولومي المذكورون ينتدوا كلهم يم متهمون ينتون ولي mbolo mi muslim tuddu ñom ñëpp ñu tumal lañ matrukuuna ñuñ bayi lañ la yutu shaaxalu duñ soxlo bi ahadin ci kenn minum ci ñom li shiddati dafim ngir tatak sen ak lot wa shuhratim ak siiw gën siiw bi wadil ahadith ci fen tadis ñi ñëpp ay fen fentkati hadith la fen fentkati hadith moy ku dem sos hadith bo xamni ne nee to ko wax ye yee to waxu dara moom sa xamna na to yonentu ko wa miswar miswar bi kasri mim ci kasri mim moy abdullah ibn miswar dégg وعبد القدوس الشامي يعني عبد القدوس الشامي بشين السين المعجمة تقول توم نسبة دنكو أسكن إلى الشام هذا هو الصواب ما ينجب في جوم شامي شين بوتوي وحكانت لنا القاضي عياد أن بعض الشيوخ ينسي سرني من رواة مسلم شنين الحديث شوال مسلم دبته تكنا سامجي بالسين سين المهملة قلنا لنا سامي قال لنا وهو خطأ لون جمتلا قاضي عياد لون جمتلا وهو خطا نو جمت لك كما قالكم نكو قال عيار وخي باسكو الشامي لن يروح دوك الشام لن كاسكي وهذا لي لا خلاف ديت ووتي في ديت نيك ومم عبد القدس مومو مي عبد القدس بن حبيب الكلاعي الشامي ابو سعيد روانت لنا عن كريمة اكعتا وغيرهما كل من النار قال وانا ابن ابي حاتم قال وانا عمرو بن علي الفلاس نأجمع دجل وانا اهل العلم خم خم ala tarki xadis yi ci bàyyi xadisam abdul qudus moomu borom xam-xam yam ne xadisam baaxul faada kii huwa abdul qudus mooy abdul qudus allazi bi nga xam ne an naahu jublu na ko muslimun muslim huna fii abdul qudus bun habib alkalaa'i alchaami kooku la muslim wax ne moom fentikati xadis la xadisam ñëpp ko ba waaye nag am na keneen koo xam ne abdul qudus la tudd te bokkut ci wala moom ñeen la leen aaxar keneen ismuhu turam abdul qudus kooku siqatun ku hóor la woo moom abdul qudus bun xajjaaj abul muxira كي أبو سعيد كي أبو المغيرة الخولاني الشامي الحمص الحمصي سمع دقن صفوان بن عمرو والأوزاعي وغيرهما كل من النار روانات العنو عبد القدس من يار المي أحمد بن حنبل يحيى بن معين محمد بن يحيى الزهري عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وآخرون أن من كبار الأئمة تيجي ماجي إيه، نجيتي ماجي والحفاظ أن نتلك الحديث ماجي قال وانا احمد بن حنبل العجلي ودار قدني دار قدني وغيرهما كل يوم نهو عبد القدوس بن يار المي بن حجاج نيوخ ثقة كهر نعم. وقد روانيت لنا لو نيلك البخاري بخاري ومسلم أو مسلم في صحيح ما سنتيري بخاري ومسلم جنين عبد القدوس بن حجاج بي أما عبد القدوس بن حبيب الكلاعي مم كوكوم بل الله وما محمد بن سعيد المصلوب فهو مم الدمشقي وادمشق له كنيته ذاك انترم محمد بن أبو عبد الرحمن ويقال danañ ko waa abu abdullahi wa yuqaal danañ waa abu qays yëpp daakantaram la wa fi nasab yi nekk na si askanam wa ismi ak turam ixtilaafun wuute kasirun lu bëri jiddan lool laa naalamu xamuñ axdan kenn dégg nga uxtalifu wuute nañ fii ci moom ka misli comme moom turam ak askanam wuute gu bëri am na ci goo xam ne mos ñoo gis wuute am ci tur ak ci askan lu mel noonu waqad xakaa nettal naa xaafis abdul gani al maqdisi an baari asaabi xadis jëlee si ñenn si ñooy xadis andoo ne moom yaxli bu dana not ismu turam ala naxwi mi atin ci lu mel ni téeméer dem na ba am téeméeri tur qaala abu xatim arazi nee na matrukul xadis kuñ bàyyi xadisam la moom muhammad bun saïd al maslub qutila rey nañ ko wa suliba ñu salab ko fi zandaqa ci kàccoor zindiq mooy kuy feeñal lislaam dina bu kéefeer ci lañ ko reyee wa qaala ahmad bun hanbal ne qatala wa rey na ko abu jaafar moo ko rey fi zandaqa ci naafiq xadisu xadisa moom muhammad bun saïd mawduun du ñuy fent la wa xaala Xaalid bun Yazid ne sami'tu dégg naa ko yaqulu may wax naan idaa kaana bu nekkee kalaamun xasanun wax ju rafet lam ara gisuma baasan benn xaay an ajaala ma def loo ñeen ko isnaadan sanad moom daneen ah wax ji daal bu dee rafet na rek naa ko wutal sanad rek na yonentoo ko wax maa naa wutal naa ko wutal ay góor yu ma ko wéet ne di wax na di wax na di wax na di wax na ba ci yonentu parce que wax ju rafet la loolu la daan wax moom Mouhamed Boun Saïd wa amma Giyaas bun Ibrahima fa bil xëy na al muhajama xëy gi dañ koo waa kuufa kunyatu daakantara mooy Abu Abdurahman qaala wax na al fi taarix yi ci taarix am ne tarakuhu bàyyi nañ ko kenn faalu ko daal wa amma qawlu waaye waxam wa Souleymane bun Amru Abi Daawuda foo moom amrum mu amru la bi fatil aynin ci fata ayn gi ubbi waaw daa ci mbind mi ndax bu àndut ak waaw Omar dañ koy jàngee wa Abu Daawuda kunyatu daakantaram Souleymane mooy Souleymane hada وابو داود كنية سليمان هذا دا كنتر سليمان ميرا سليمان ميتوري بن عمرو ابو داود ميرا كنترم والله يعلم سبحانه وتعالى مثلا على ما يجي خم كو كسمي دا قديسم لا بكو دين بس كني مو تدين يب دين تومال شن حديث دين كو بكن فاول كو نعم. واما الحديث الموضوع وحديث بن فنت فهم المختلق بن فنت المصنوع بن لجي وربما أخذ امان مجل الواد أن يتك حديث ذي من وخ لغيره ينال كنن فودعه متفنتكو وجعلوا مرفكو حديثا حديث ليلك مفك وخ جام ودفكو حديث وربما ودعه أمانة مفنت كلام وخ يعني نفسي شبهم ما خلات به وخ بهم حديث له وكثير نبري من الموضوعات حديث ينفنت أو أكثرها ولا يجوز أبو صح يشعر ذنا سيد بودعه فنتكو ركاكة لفظها لا تقبادها baat boo boo xoolee dafay doyatee doyati ñàkk baraaxa doyati ba nga xam ne daf lay wóor ne lii yonent waxu ko moo tax yonent ku fasaala kenn mënu ko toppandoor waalam xamal an na taamuda walil xadis na tey fente xadis xaraamun dafa xaraam bi ijmail muslimina si dëppog jullit ñi alladina ñi nga xam ne ñoo tudd dañ dégg nga konte biim ci ñoom fi ijmaa yi si dëppoo mhm. lu nekk ñañu déglu ci xam-xam moom lañ dëppoo mën naa nekk bu ñëpp borom xam-xam yi dëppoo benn waaye bu xamul dara ñëw fee du noonu kooku duñ ko faale su ko defee ñu nag mm, fii ci réew mi lu suñ problème mooy kum neex tëb sol mbu mu la neex ci xam-xam dugg ci làng gu la neex ci xam-xam jàkkaarloog borom xam-xam bu la neex nit ñi naan déglu leen ko kooku kenn waru koo déglu parce que xamul dara xamul dara ku ku jàngagul du corriger borom xam-xam bu dem ba dëppuwaay koo xam ne xamoo ay layam xamoo ay sukkandiku waayam fu mu sukkandiku boo wax lii xamoo ci dara yow nga ñëw rek sa xelam bopp ne da dindi li muy wax nit balaa ngaa dajji ay tabaxam da ngay xam fu mu ko tabax. déglu sax la ñu war a def déglu sax parce que xamuñ xamuñ si jàng lañ tool waaw. wa si sa jàdd na alkaramiya wa karamiya alfirqatul mubtadia kuréel gu fent. Hmm. kuréel la boo xam ne dañuy sos. fa jawazan mu daganal wadu mu fenti xadis fi tarxiib ci xemam loo wa tarxiib ak ragal loo waa waa waa karamiya mm, dañoo ñoom dañ ne xadis buy ragal loo na ñi lu bon wala buy xemam loo nit ñi lu baax mën nga ko fenti sos na yonantoo wax si misaal nga jël rek jàng suratu baqara yonantu wax na ci nangam te waxut ko ñu ne loolu dagan na loolu daganut wa zuhri wala xadis buy wax ci dëddu àdduna ñu ne boo fentee liy wax ci dëgg dëddu tax nit ñi gën a dëddu àdduna dagan na yonantu sallallahu alayhi wa li mu wax doy na amul lu ñu war a wax luy xamam loo ñu lu baax lu may wax na ko lu wax doy na yow bay wax waxal sa waxi bopp rek te te sukkandikoo ko ci alquran ak sunna dégg nga waaye fenti ay wax moom dara jaru ko ndax lu yonentu andi doy na waxat salaka soobu na maslakum seen yoon baadul jahalati ñenn ci way réer yi al muttasimina muttasimina yey meraw bi simati zuhaad ci meraw ñu koy dëddu tarxiban ngir xamam loo fil xayri ci lu baax fi zaamim seen njort al baati la gay neen am na ñenn ci ñu réer ñi ñu ne dañoo dëddu àdduna di fenti ay wax yoo xam ne daara du ci dëgg askan ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jublu si ne dañoo bëgg nañu góorgóorlu ci lu baax loolu loolu lu bon la waxadaa lii xabaawatun dof la zaahiratun bu feeñ yaa ngi gis imaam Nawawi ni mu ko tàngalee ndof la ko tuddee ndof gis nga dof waxal dof la dëgg moo amul maslaa dof xam nga lu ñu war wax dof la zaahiratun gu feeñ pourtant ñi ko wax mën naa amoon na ñoo xam ni nit ñi daañu leen joxañ jox borom xam-xam sax waaye bañ nekkee borom xam-xam topp seen bakkan ay dof lay rek rawatina nag ko xamul wa jaxaalatun réer la mutanaahiyatun bu yegg ci doye wa noonu la ko muslim tuddee wa yegg fii dana doy fi raddi ci tontu alayhim ci ñoom ñii doy na rek tontu leen xaw na rasulullah wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam man kasaba ku naral ci man mutaamidan aji tey fayita boobu na préparé maqaadu toogawaay mi ne naari safara ku ma naral te yaa ko tey préparé sa bopp safara ko yonentu kenn wuru koo fenal ci benn côté ñoom dañ naan innama kazabna lahu dañoo fan fen ñeexal ko waaye fenuñ alayhi fenuñ feñ gu koy yàqal fen gu koy defaral lañ wax fen moom fen rek la yonentu sallallahu alayhi wasallam bu fekkee xam ne leneen luñ ko war a fenal war koo wax pour nit ñi gën a góorgóorlu ah so mo hamdul warono wax ta bàyyi ko yonent li mu waroon wax yëpp wax na ko jaratul fen dara la mu wax boo ko boo ko yaatalee rek nit ñi góorgóor wasana si danañ dolli xadaa li xariban ci lu jege saraan saraf saraxa fi moo di ci barabam insha allah taala nem soob yàlla lii danañ ko saraxat bu ñu yeggee ci barabam bu soob yàlla waaw maa qawlu waxam wa tawlidul axbaar ak judduloo xadis fa maanaaw insha allah mooy sos xadis wa ziyadatoo ak yokk ko maanaam sos xadis yokk ay xadis yoo xam ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxut ko nga wax ko ñiy fente xadis kon muslim nee na du jël seen xadis mu ne wa kazaalika nekk noonu minal xaali bi bokk na ci lu not maa ngi ci waxi imaamu muslim génn naa ci saraxa bi doon nawe di saraxa lu njëkk la wa kazaalika nekk noonu minal xaali bi bokk man koo xam ne alxaali bu lu not ala xadis yi ci xadisam al munkar mooy xadis munkar mooy koo xam ne ñaareel xadisam yi dafay dëppoo ak xadis yu borom xam-xam yi ñooñu nangu seen xadis dafay wuuteeg seen xadis kon koo xam ne xadisam yu ëpp wala lépp sax wute naag la borom xam-xam yi nettali koo xadisam munkar la awil xalat wala koo xam ne lu ëpp ci xadisam day juum waxuñ la koo xam ne day juum ndax ku dul juum yàlla rek la waaye lu ëpp ci xadisam dafay juum kooku yonent kooku imaam Nawawi nee na am sakk naa dañuy bàyyi ay lan ba tey xanaa xadisim seen xadis ñooñu duñ jël seen xadis wa alaamatul munkar mandargaak munkar fii xadisil muhaddis ci xadisu aji nettali xadis bi mooy isa ma uridat buñ nettalee buñ gaaralee riwaayatu ak soloom lil xadis ñeel xadis bi ala riwaayati xëyri si solo keneen mi ahli xifdi si ñooñ mokkal warida ak ñuñ gërëm xaalafat wuutee na riwaayatu nettalem riwaayatuhum nettali gaa ñi awlam takkat wala xawul sax tuwaa fi xaali dëppoog ñoom mm-hmm. koo xam ne nii mm-hmm. soo jëlee xadis yam nettali lëkkale koog la borom xam-xam yi nangu seen xadis nettali moom safaan la borom xam-xam wax lay wax dañuy wutee kooku xadisam munkar la kenn du ko jël hmm. wala boog lu ëpp ci xadisam dafa wuteeg gaa ji kooku munkar la kenn du jël xadisam fa idaa kaana nekk na al axlabu lu natt min xadis yi ci xadisam kazaalika comme noonu xadisam yu bëri dafa wuteeg xadis yu bon xam yu mag yi kaana day nekk mahjuural xadis di kuñ gàddaay xadisam xeer maqbulatin duñ ko nangu wala mustaamali yi duñ ko jëfandikoo. Hmm. fa min haada darbi ci bile yoon la min al muhaddisina ci nettalikat hadis yi Abdullahi bun Muharris Abdullahi bun Muharrar bun Muharrarin dégg hmm. am nañu ko def zaay waaye Muharrar moo gën a wér Abdullahi bun Muharrar hadisa munkar la ak Yaxya bun Abi Unaysa ak Jarraax bun Minhaal Abul Atuuf al Abbaar bun Kasir ak Xuseyn bun Abdullahi bun Dumayra ak Omar bun Suhbaan ومن نحى كجبل نحوم سن يون أه، أه، أه. في رواية المنكر سنتر لن فك من الحديث شهريز من حديث يون فلسنا نكون نعرج دجاد على حديث سن حديث ولا نتشاغل دون سخل وبي سن حديث لأن حكم أهل العلم أنك أتعي برم خم خمي والذي أغلين خم نعرف درين كو خم من مذهب سن يون برم خم خمي لن أتعي أغلين خم سن يون في قبول ما تنغل يا خم يتفرد دون ويتو بيتم المحدث أجنت لمن الحديث حديث ان يكون موي مو نيك قد شارك دي بوكاتك اسيقات نيورني من اهل العلم شنو يعني خم خم والهفز موكل في بعد ما رواو تي لين تي لم نتري ما ام تي اوب تي لم نتري وامانه تم قتل ما ام تم بريل في ذلك تي لون موافقه تي دبوك لهم نيل يعني نانا خم تي خم خم ني نانغو حديث خم ني نتري موم رك موكو نتري su fekkee li nga nettali yow yaa ko nettali balaa ñu koo nangoo nga nekk koo xam ni li ngay nettali li nga nettali ñeneen nettali nañ ko li nga nettali yeneen nettali nañ ko bis boo ñëwee nettali loo xam ne yow kese yaa ko nettali keneen nettaliwul ko mën nañ koo nangu waaye ko xam ne li nga nettali kenn du ko nettali yow yaa koy nettali kooku kenn du ko nangu ndax sëriñ ba nga ko jëlee amoon ay taalibe yu bëri lu tax no eh, taalibe mi yooyu yëpp kenn nettaliwul ci lii nga wax yow yaa ko fa nettali loolu dañ koy dàq su fekkee ne la nga nettali ci sëriñ boobu am na yeneen taalibe yu ko nettali yu doon jàngee ci sëriñ boobu waaye nag yow da ngaa nettali loo xam ne ñoom kenn nettalul ko ci boobaa danañ ko nangu parce que li ëpp da ngaa dëppoo ak ñoom nettali lu nettali lu ëpp soo nettalee loo xam ne yow kese yaa ko nettali danañ ko nangu mais su fekkee li nga nettali yow kese yaa ko nettali loolu kenn du ko nangu kooku hadis munkar la fi daa wujida buñ ko fekkee moom waa ji kazalik comme noonu maanaam muy nettali lu ëpp li ëpp ci li muy nettali ñeneen a ngi koy nettali mhm. su ma zaara mu yokk baal zaara gannaaw loolu chey an dara lay si nekkul ne asxaab ci ay gaayam xubila mhm. dañuy nangu ziyaadatoo loolu mu dolli lii moom rek moo ko nettali gaa moo ko wéetoo waaye nag moom li ëpp ci ay xaddisam ñeneen nettali nañ ko di wane ne moom ku xóor la mhm. ndax li muy nettali du moom rek moo ko wéetoo tey mu ñëw nettali loo xam ne moom rek moo ko nettali jëlee ko sëriñ bi keneen nettaliwu ko mën nañ koo nangu ndax mën naa mu jëlee ko sëriñ bi ci waxtu woo xam ni keneen nekku foofu wala sax ñeneen ñi bañ koo nettali moom kese mu nettali ko mhm. loolu waaw <coughs> dégg nga su ko defee su su ko defee loolu duñ ko yàqal waaw waaye koo xam ne lu mu wax moom rek ku koy wax ko wóor hmm. waaw su fekkoon ne Kaolack dafa am xibaar bu fa am benn waay benn waay ñëw ne rek Kaolack xibaar saa nga xam na fa hmm. mboolem ñu jógee Kaolack koo si laaj mu ne xaw ma ko moom rek moo war a nettali xibaar boobu hmm. ca waay Kaolack ñu jógee Kaolack bari lool xam nga ne kooku doo ko gëm. كون كو خمني حد يجي من التلياب كان نتلو يكون مكسلة كو كو حد يزمون كار فما من ترى هو كو خمني جسمه يعمل ويجول لمثل زهري كم عن زهري في جلالتي كما قايم وكسرة أصحابي أكبري أي طالبهم الحفاظ يموك المتقن يقرن يلي حديث يلي حديث زهري طالبهم برني يموك الحديث برني دين يموك الحديث وحديث خيري حديث كنن كدر موم لقو بين وين يوين نتلي زهري لو خمني moom rek a ko nettali ah su fekkee yeneen xadis yi im nettali yi ci ëpp yeneen taaliba zuhri yi nettali nañ ko da nga nangu loolu mu nettali moom kese mais fekkee moom xadis yi nettali zuhri yëpp xadis yu bëri la te keneen nettalul ko ci zuhri yi wala yu ëpp moom rek moo ko nettali zuhri yi keneen jëleewul ko ci da nga xam ne kii xadisam munkar la xaw li misli Hicham bun Urwa wala boog ku jublu ku mel ni bun Urwa bun Urwa وحديث وما تزن حديث عند أهل العلم شبرم كم قل مبسوط من تعالى المشترك من بكاتلا قد نقل تخلنا أصحابه ما سين جاي عنه ما شنيم نار حديثه ما سين حديث على اتفاق كده بوم من شنيم في أكثر يجرو أبو كم من حساء إشام بن عروة زهري سين طالب نتل من أبو سين حديث فيروي من نتل عنه ما جلي شنيم نار أو عن أحد ما ولكن شنيم نار العدد اللي مبلي من الحديث حديث مما تلا خم لا يعرفه قمك أحد كان من أصحاب ما سين طالبه wala sa nekkul mi man ci bokk ci ñi nga xam ne xas bokk ak ñoom fii sax ci hadis yu wér hmm. mi ma indoom ca lañ yor kooku fa xeeru jaayizin daganut qubula hadisin nangu hadis haza haza dar bi la xeet hadisu xeet bi mina naas ci nit ñi xeetu nit ñi seen hadis kenn ko nangu hmm. daganut qubula hadis haza dar bi mina naas nangu hadisu xeetu nit ñi hmm. ci misaal Zuhri ay taalibeem bari nañ koo xamee ne nii xadis yam nettali yeneen taalibi zuhri yi nettali nañ ko mu ñëw tey nettali loo xam ne moom rek moo ko jëlee zuhri yi da ko mën a nangu waaye koo xam ne yamuy nettali taalibi zuhri yi kenn nettalool ko ci wala yu ko ëpp yu ci ëpp moom rek moo ko wéetoo kenn nettalool ko ci kooku lam la nettali bu ko jël ndax bu doon dëgg yeneen taalibe yi ko mhm. nit mënoo jëlee ci moom wax ju bëri te yow rek yaa ko fa jëlee te yow rek jàngoo mhm. wallaahu alam yàlla rek maa ji ñaareel borom xam-xam li ñu wax ñaareel ci mbooloo la koy waxee ñu bëree koy déggandoor hmm. kon du kenn rek moo ko mën a toxal waaye nag léeg-léeg kenn mën naa toxal lu ñeneen ñi toxal moo tax su fekkee yaa gaa yi dëppoo ngeen daal ci xadis yu wéri hmm. dañ la nangul li nga wéetoo bu dee nag yow rek yaa wéetoo say xadis nag munkar la hmm. sharax naa nettal nañ min mazhabi xadis ci yoonu xadis wa ahli ak ñooñu xadis leeral nañ kon xas sharax naa leeral nañ min mazhabi xadis yoonu xadis wa ahli ak ñooñu xadis baadama leen nga xam ne yu tawajjahu yatawajjahu dana jublu bii ci moom man araada ku bëgg sabilal qawmi yoonu nit ñi woo fi xatañ dëppalikoog njublahaa ñeel ko wasa nasir danañ dool incha allah nem som na yàlla taala kawene sarxan ak leeral wa idaahan ak wa sharxan ak ak sharaxa wa idaahan ak leeral fi mawaadi ci ay barab min kitaab yi ci téere yi inda inda zikri axbaaril muallala bu ñuy tudd xadis yu lott yi yu am alla yu am ragg-ragg isa atena buñ indee alaya ci hadis yooyu fil amaakine ci barab ëllëti yi nga xam ne yëliqu dana yàlla biyaa si moom acharxu charha wala daa ak leeral incha allah nañ sun yàlla taala kawe boo déggee ba ci barab boo xam ne tudd na fa hadis yoo xam ne am na buy tudd si hadis yu am ragg-ragg yi dana yokk yeneen leeral ci wàllu xam-xam hadis wallaahu incha allah taala bu soobee yàlla dégg su ko defee loolu tamit lay imaam Nawawi di charha li mu wax nii لا مسلم وخ ولف الإمام النووي يقول شرحه من وعجوان وعلامة منكر في حديث المحدث إذا ما ورد روايته لحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرداء خالفت روايته روايتهم أو لم تكن تخالف هذا الذي ذكره هذا الذي لين قام ذكر ابنك رحمه الله يعلم كثيرا هو معنى المنكر لما معنى المنكر عند المحدثين شنو يحدث يعني لمسلم بيتهم المنكر منكر المردود بن دلو منكر دفهم نعرف buñ dàq ak buñ nangu. Mhm. fay noonu naka ñoom xadit lu xool léeg-léeg ñu jooyal al munkar munkar. Mhm. alal firaari siqati ci wéetoo ku xóor bi xadis ci xadis. Mhm. bu dee bi ku wóor moo ko nettali moom kese moo ko nettali. moo wax naa la léegi ne danay jëlee ak ci sëriñ bi ay xadis yeneen moromam di nettali sëriñ bi xadis boobu. tey mu nettali xadis boo xam moom rek moo ko nettali. kooku munkar la waaye dañ koy nangu parce que kooku ay xadisam danay dëppoo xadis gaa yi kon bu wéetoo danañ ko nangu. waxaasa lii lay si nekkul bi munkar di munkar mardud buñ dàq isa kaan bu nekkee asiqatu siqa bi daa bi tan di aji takk mutqinan di aji xereñ kon su ko defee yow nga xam ne yaa soog a door bul dégg ñu ne xadis bi munkar la rek nga ne munkar mardud la bu ñuy dàq foo nga xam ban munkar la ban xeetu munkar la loolu dafay laaj gëstu ba xam lu tax ñu ne munkar la soo xamee lu tax ñu ne munkar la rek da nga xam ban façon munkar la ndax munkar bu ñuy dàq la wala bu ñuy nangu la moo tax dëgg dëgg dëgg dëgg wala xadis def si attention baax na bu loolu da nga fenal yonent bi ndax da ngay ñeme yàlla rek ñoo ne lii yonent waxu ko xadis bi diw nee na nangam la munkar la munkar la fekk yoo xamoo sax lu diw jublu si munkaram ki te dafa baax ci wala xadis dégg nga وليس بهذا وهذا لي ليس يكون بمنكر مردود بمنكر بندق إذا كان بنيخي أسقط كهور كوك دابتا داجي مكل متقنا داجي خرين وxawlu aw lam takkat tuwaafiquha maanaa maanaa bu mooy laa tuwaafiquha du dëppog moom illaa fi qalilin mooy ci lu tuuti koo xam ni lu tuuti lay dëppoog lu xool ci wàllu xadis ko xadisa munkar la qaala woon ahlul luga kaada xaw na mawdu mawduatun luñ tëral la lil muqaarabati pour jege maanaam lu xaw naa nangam mooy jege na ko fay na mi taqaddam xaa nam jiituwut ko na fi ndàq kaana nekk na li muqaaranatil fiili li muqaarabatil fiili jege jëf wala mu yefal te defut ko bu ne kaada mooy xaw na koo def waaye defut ko ka xawli taala yaakaaroo dana xaw albarqu melax ga yaxtafu di këf abu saarum seen bët kon melax gi xaw naa këf bu këf bët ya waaye këfut ko loolu nga ci déggee parce que àndut ak dàq bu ànd ak dàq nag def na ko waaye da koo yéex a def kaada bu ànd ak dàq mooy firi def na ko waaye da koo yéex a def mooy wayn taqaddamaa nam jiitu na ko nafim dàq kaana nekk na li fin la ñeel jëf baax na but in gannaaw yéex bu fekkee kaada kaada dàq moo ko jiitu hmm. mooy def na ko waaye yéex na koo def bu ko dàq jiitu nag mooy xaw na koo def waaye defut ko hmm. loolu jar naa bàyyi xel wañ ci itam bu la neexee xulta nga wax li mu xaarabati adamil fay daf koo jege ñàkk def bu ko dàq jiitoo hmm. jege naa ñàkk def waaye def na ko nag ka xaw di taalaa ni ki wax yàlla fa zabahuhaa rendi nañ nag wa wa maa kaadu te xaw ñoon yafaloona di ko def maam xaw tuuti ñu ñàkk koo rendi def nañ ko dañ ko yéex a def kon kaate noonu firi قال وانا رحمه الله فمن هذا الدرب من المحدثين عبد الله بن محرر محرر ويحيى بن ابي انيس والجراح بن منهال ابو العطوف وعبار بن كثير وحسين بن عبد الله بن دميره وعمر بن صهبان mu ne ama abdoulahi bul muharrar bul muharrar foo moom bi fatil xaayi ci fataaxa gi al muhmalati guñ tomb gi wa bi raa ay na ak si ñaari raa yi muhmalate ne yuñ neenal yi al muhmalati buñ neenal laay bi ko wax xaa gi dañ koo neenal ñaari raa yi dañ koo neenal al ula bu njëkk bi raa gu njëkk bi maftuxatun dañ koo fata mu shadda dañu sadda ko muharrar hakaza nii la hoo moom fii riwaayatina suñuy nettali wa fi usuli ahli bilaadina ak ci cosaani suñu waa réew téere yi suñu waa réew nettali sayi muslim daal muharrar lañ wax وهذا اللي هو صواب موجب محرر وكذلك نذكر لو تدي البخاري بخاري في تاريخي في تاريخه وابو نضر بن ماكولا من لو تدي وابو علي الغساني الجياني واخرون ان ينن من حفاظ بروم قنقم حديثي نون لنج تدي وذكر تدنا القاضي عياد ان جماعه شيوخ ان جماعه شيوخهم منكم بولم سن سرني رواه نتل محرز Abdullahi ibn Muhriz nee na ñoom noonu lañ nettali bi iskaanil xaayi nga sukk nga sukkoon xaagi wa kasir raayi nga kasar raagi wa aaxiroo mujj ga zaay zaay la fekk mu xarar moo gën a wér xaaral nee na waxoo Muhriz googu sëriñ si nettali xalatun njumte la wa sawaabu lay njub al awal mooy bu njëkk ba Abdullahi ibn Muharrar wa Abdullahi ibn Muharrar aamiriyun jazariyun ka jug jazara la waa jazira la bokk raqiyun ka jug raqa la فوف دك والله فلنك ابو جعفر قدا ورقم اتكر فوف شرقه هو من تابي تابين مي بوك تابي تابين روى سولونا عن حسن جريج حسن وقتادة وزهري ونافع مولى ابن عمر بايال ابن عمر ونافع واخرين اغنين من التابين ستابين سولونا نيوري ستابين واي موم ستابي تابين بوك وروى نتل نانو تشموم الثوري وجماعة بورو ثوري جيرينا تشموم بورو تشموم بورو كم كم واتفق دبون على حفاظ بونكم قيم حديثي والمتقدمون أن يجيتوا على تركي جبايك يعني مم دوتوس قال ابن أحمد بن حنبل نترك باين الناس نين حديث وحديثهم كو حديثهم نين نين كوبا وقال آخرون نين الوحن مثلكم لولو ونحو أجمل نون وأما أبو أنيسة والد يحيى واجر يحيى رفي اسمه زيد أبو أنيسة مجر يحيى يحيى ابن أبي أنيسة زيد ذا تدو waa bu ama abu atuuf bi fatil ayni ci fata ayn gi wa dammi taay ak dammu taay al muhammadata ni bañ neenal noonu lañ koy jàngee mm-hmm. wal jaraax bun min hal hada li jaziriyun kii jaziriyun waa jazira la bokk yar yu solo naa ni taabeen si taabeen yi samia bun utayba wa zuhri yar wi dana solo anu moom yazid bun harun qaala woon al buxaari buxaari waxee waa kudul moom mm-hmm. ne xoo moom munkarul xadis ku fakk xadis la xadisam munkar la wa ma suxbaan waaye suxbaan foo moom bi dam misaali si dam misaali ak muhammadatu guñ ñaanal ñii nag seen xaalis munkar munkar gu bon dañ si parce que waxoon nañ ko suxbaan da ngay dam ko iskan xaay wa amru bun wa umar aslamiyun madaniyun waa waa madina la ويقال أن في جموم عمر بن محمد بن محمد بن صوبان متفق بن دبول على تركي جباي حديثا قال وانا رحمه الله كلاما وق مختصرا بن قتل أن زيادة الثقة أن الدول كن هولو الدابت كمنا تك مقبولة من نغول ولكن كي كهور لا كموكال لا كن نغو حديثا من يتلو خاني ممرك موكو بيتو دن كوي نغو كوكو دولي نيداق wa riwaayatu shaaz nettaliku shaaz wal munkar ak munkar mardudatun lu ñuy dàq la shaaz mooy lam nettali dafa wuuteeg ñëw wér xadis lañ nettali kooku lañ koy dàq munkar nag moom lii mu nettali moom kese moo ko nettali ñeneen nettaluñ ko li ëpp ci xadis moom rek moo koy nettali dañ koy dàq wa haada alladi li nga xam ne xaaloo wax na ko wa saxiwu mooy lu wér alladi li nga xam ne alay nekk na si moom aljamaahiru mbooloo yi min asaabi xadis ñooñu xadis wal fiqi ak fiq wal usul ak usul nawawi nee na lii wér léeg-léeg nag gis koo xam ne dafay dàq xadis loo xam ne nii xadis la dàqewul ko lu mooy diw rek moo ko nettali mhm. diw moomu nangu na ne siq la waaye nag comme moo wéetoo lii wax ji dañ koy dàq hmm, su fekkee diw moo ko wéetoo te diw moomu siq la kooku xadisam dañ koy nangu loolu li wér moom la mbooloo yi jàpp ci ñooy xadis ak fiq ak usul comme ni ko nawawi nettali fii mhm. waqat taqadama jiit na idaa haadihi masalat leeral masala mi mooy ziyaadatu siqa وبيان الخلاف على الوتي في أجمع وما يتعلق لا يجبي أجمع في الفصول السابقة في فصل يجيت ولا أعلم يا ذلك خم قولوا وهم قد نقل تقلنا أصحابهما سيني صحابا وما سيمنا حديثهما سيني حديث الاتفاق شدبو هو ممحاك زاني لكو بالله في معظم الأصول شدبو شتيري شساني الاتفاق على الاتفاق بالفاء اتفاق أولا والقاف أقاف آخرا تموجب وفي بعدها لن على الإتقان am nañu ala itqaan maanaam Zuhri ak ak Hicham ñu bëri seen taalibe nettali nañ seen xadis waaye ala itqaan ndax xarañ ko bil qaaf ci qaaf awalan ci njëlbeen wa nuun ak nuun aaxiran waaye ala ittifaaq ci dëppoo moo gën a wér wala awalu bu njëkk bi ajur moo gën a rafet wa sawaab te mooy njub qawloo waxam fa yurwa anhuma aw an ahadihima al adada min al xadis al adada mansuubun dañ ko nasab فيروي كون لينك مصلى عنهما وانا عديما العدد العدد مفهوم لمبيرا مفهوم يروي له دينا وقد شرحنا من مذهب الحديث واهلي بعد ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها ما يتوجه به أن يقصد دون جبل طريقهم سنيون ويسلك مصوه مذهبهم سنيون وسبيل سبيل الطريق مويون waxuma ñoom ñaar yu annasaan dañ leen def mu annas wa yu zakkaraan dañ leen def mu zakkar hmm. sabil dañ koy def mu annas di ko def mu zakkar hmm. dégg nga leeral nañ loo xam ni daal hmm, ku bëgg a soobu ci yoonu xadis man nga koo mën nga cee jaar wa tawfiq tawfiq xalqul qudrati mooy bind kat qudrati taati mooy bind kat nag topp kooku yàlla rek ko mën la ba nga mën a topp kooku <coughs> kooku yàlla rek moo ko moo ko قال رحمه الله وحنا وسنزيد ان شاء الله سرعا وإيداحا في مواجهه الكتاب من ذكر الاخبار المعلله اذا اتينا عليها في, في الاماكن التي يليق بها الشرح والايداء ان شاء الله تعالى هذا الذي لينا خمنا ذكر وتدنك مسلم مسلم من مختلف فيه دنج وتي وانا نبوي تد حالي شراغي dana gën a leeral am ñu ne faqir am ñu ne ixtarat mu ixtaramat xëtt na Mm-hmm. dafa am ñu jàpp ne muslim day indi hadis ñu wér. Mm-hmm. teg si ñuy digg doomu andi hadis yu lot yi dégg nga. Mm-hmm. waaye hadis yi ñu gën a lot moom da ko ñu ñu ñu ñu dëppoo ne moom dañoo lot wala ñu ëpp si ñoom dañoo lot da koy ba ñu ne dafa dee njëkk mi andi hadis yu lot yi. waxil li fi nekk ba li fi nekk zakaroo waxila wax nañ ne ba li fi nekk zakaroo tudd la ko fi abwaa bi ci ay buntam min haadal kitaab ci biir téere al mawjuud yu am am na ñu ne tudd la ko parce que dafa tudd hadis yu wér yi. ci usul yi ci cosaani at yi ci ci mutaabaat yi ak shawaahid yi nag mu andi ci yeneen xadis yi nga xam ni dafay dëgëral dañ koy dëgëral yële day gën a dëgëral kon andi na xadis yu wéri ci usul yi ci cosaani at yi sukkandikoo ci atte woo indi yeneen xadis yoo xam ne xaw naa doy waar waaye atte woo ko fekk na mu andi xadis buy wax loolu ba pare mu mel ne rek yow ngay wax benn wax indi wax yi ku gën a wóor ba pare indiwaat beneen wax yi koo xam ni melut noonu waaye xam nga loolu day wane ne la rek parce que hmm. wax ji nga njëkk a indi rek doy na hmm. su ko defee usul mooy la muy sukkandiku kooku xadis yi ñu mag ñi la ci jël shawaahid ak tawaabi indi na si xadis yeneen ñu diggu doom yi ak xam ne xaw nañu lot su ko ñu ne andi na ko am na hmm. da koo bëggoon andi far deet faam koy bind waqad taqaddama jiital na bayaanu haza leeral li waadi xam di leer fil fusuli ci bunt yi wallahu alam dégg nga su ko defee nag li imaam Nawawi euh, muslim mujjee maa ngi waat ci muslim ne ba baadu gannaaw ga yaa xamu ko laa yana yàlla yërëm hmm. fa loolu la ji budutoon li nga xam ne ay naa gis nañ ko min suuy saniin kasir min suuy saniin kasirin ci ñaaw ak jëfe ñu bëri hmm. mi mën na saba ci ñuy samp naf soo seen bopp mu hadisan di nettali hadis hmm. fi maa yelza moom ci li nga xam ne war na leen min taril ahadis yi daifa ci sànni hadis yi lott yi wa riwaayaat ak nettali ak munkar yuñ bañ yi wa tarkim ak bàyyi gi ñu bàyyi al ixtisaara hem على الأحاديث الصحيحة حديث ويري المشهورة يسوي مما تناقم نقل وتخل نقو أسيقات نيول ني المعروف نينقم بسرق جدق والأمانة كلت بعد معرفتهم قناو سنقم وإخرارهم أكسر نانو بألسنتهم سن لامن أن كسر نلو بري مما يقصفون سنة إنسان بيتهم إلى الأقبياء يمشي دفي من الناس سنيني هو مو مستنكر نفكلا ومن قول لن تخلا عن قوم غير مردين يوقم نقرم لن ميم مانتي نيت ني خامني غاني نا روايه نتر عنهم شي اي متو اي حديث نجيت نيو حديث مثل مالك بن انس كمل ني مالك بن انس وشومبة بن حجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم اكل نيوم من اي مت شي نجيتي من سو نيكوتو نا ني جامونا جي سامبو سين بوب دي نتر حديث تاديجي لوت يو بون لا ني جيل ديكو نتر هم شي ويري yi nga xam ne nii ñu wóor ñoo ko nettali dañuy jël xadis yu bon ñoom wóor na leen li ñuy wax ni que dara du ci dëgg mm-hmm. surutoon loolu hmm, mm-hmm. ñuy jël xadis ñi di di ko jëlee si ñoo xam ne nii kenn waru jëlee si ñoom mm-hmm. di ko nettali ay dof yoo xam ne jànguñ dara ñu di leen gëm hmm, mm, surutoon ñooñu nga xam ne ñoo jëlee ci ñi nga xam ne Malik daf leen a ŋàññi Shu'ba ŋàññi leen Sufyaan Yaxya Abdurahman ak ñeneen ci borom yi ŋàññi leen surutoon loolu maanaam surtout yàqu jamono bañ ay nit dugg ci làng gi di yàq te bokkuñ ci hmm. lama sahula du yomb ale naa si ñun al intisaabu samp li ma saalta nga laaj mais tamise ci ràññee la wa tafsir ak leeral konoon du ma jug pour leeral bindal la dara ci wàllu xadis di la leeral hmm. moo tax bëri na ku jug ci jamono di wax yàquteg jamono rek koo ko yóbbee hmm. konoon mu toog ci ruqam noppi waaye waaye nit mënoo jàng xam ba pare gis ay kàccoor yu jug dugg ci làng gay am fit ñeme lool te تجوجو جاكار لوم يوم لو سدرة جمود لكمي نوري مو يكتي ناوي بام تعرف أن يصير بام صلبي نوري كوكو يكتي بام تعرف أن يلام صلبي دين ما ين جبري نيو نتري حديث يبان شان جمانو تخمن شدرا موجود دفرلي ولكن وانا من اجل ما اعلمنا هذا نقول لي ما خمل من نشر القوم من شي تسار النيني الاخبار اي حديث المنكر يفك bil asaanidi ci ay sanad ak diafa yu lott al majhula ñu réere wa xasfihim ak sànni gi sànni biyaa ci xaalis boobu ilal awaami jëm ci nit ñi alladina ñi nga xam ne laa yaarifuuna xamuñ ayuba ayibu xadis yi xafa moo oyefal ala qulubina suñ xol ijaabatu ko moo wila ila ma saalta ci li nga laaj bëri nit ñu tasaaroo di wax loo xam ni teguñ ko fenn ci wàllu xadis loolu moom mën a may ma jug di bind comme noonu nga ma ko laajee bu dutoon lool du ma ci bind dégg من قول وخم ما يقذفون به الأقبياء أي يلقونه نكوي سني إليهم جمس نيوم والأقبياء بالغين تقين المعجمة تقول تومري والباء الموحد أقباء تقول تومري هم هم يوم الغفلة ما ينساقني والجهال أقويريري والذين يقم لا في النردير قلهم جرانيال ndax ñoo ñu loo wax ñu ne waaw noonu la ak ñu bëri suñu jamono ji wax ma ak bi ci wala hadis ndax sénégal moom daanaka ñu si bëri yooyu intéressé wu leen waaye axbiya ci wàllu diine léegi mm-hmm. gis ñoo xam ni koo xam ni xabiyun lil xaaya dof la yarawul am utu utu sëriñ bu ko yar mm-hmm. mu xëy xëy rek kaalawu ne ab la musiba gu ne ñeme na ko wax ni di ko tàcc mm-hmm. yal na senegal raxas Sénégal ci nit ñi mel noonu yal na yàlla musal ñu musiba seen i gàkk-gàkk yàlla bu ñu réere yàlla bu ñu réere suñu njaboot yàlla bu ñu réere bu ñu xam xaw أول موضع مهم برب جك جاء ذكر ذكره تدك رضي الله عنه سفيان والمشهور فيه لجنة سيوتشمم دم السين وما دم السين والعين أك عين سفيان بن عيينة وذكر ابن سكيت ابن سكين سكيت تدنا في سفيان ثلاث لغات نيت لانغ للعرب يا عرب سفيان ده بو مثلث لا سين جي مثلث لا ما دم سين جي وفتحا nga فتحا ko وكسرا nga سفيان سفيان, سفيان. وذكرت ابن أبو حاتم السختياني السختياني وغيره أكد مم دم العين دم عين وكسر اكسرك أكسركو دينغو عيينة عين من كو دم من كسر سين من دم من فتا من كسر وهما نيوم نيار وجهان نيار أنا من الأهل العربية نيوم نيوم عرب معروفان يقم دينغ لولو عين غي دم كو ko ولا oyena لولا على بي خمنا لكو بتاي سوكو دفع فوف مقدم امام نبي بي جيخ جيخي نيور دوغنا تي حديثي ان شاء الله ربي من يريد الى الاسلام استطعت عليكم توفيق الا بالله علي توكلت وليوني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ني جيخي مقدم بي مقدم امام نبي امام مسلم انا يال دي مولا بن جيخي لكو حديث ياب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته